Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 quarante cinq suñuy partenaire ñu nga ca Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt jàpp 22 heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله mbokk auditeurs yi ñuy déglu ak fu ngeen mën di nekk ci seen émission al fatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana al docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullahu waraa ñu leen di ziar moo xam ñu ni topp ci biir Sénégal la ak région bu mu mënti doon wala ci biir Afrique wala ci Europe wala ci Amérique wala ci Asie wala ci feneen ñu ni topp ci Leeral FM bi ci Louga wala keppaar ga ca Kaolack wala salaam ba ca mbakke wala leeral ba ca padoor wala leeral ba ca Ziguinchor wala sax ci yeneen réseaux sociaux yëpp yi ngeen ñuy toppee lu mel ne dermalo officiel lu mel ne groupe yi euh, fatawa sopp docteur Mouhamed Ahmed Lo ak yeneen ak yeneen kon Cheikhana tey le vingt sept juillet deux mille vingt deux incha allah rabbi tombeeg le vingt huit ci weeru tabaski mille quatre cent quarante trois dañ lay jox nga ibbee ñu doogay ñëw ci lenn lu fi ci laaj. inna alhamdulilah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh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 jàll nga ci ci jàmm mel na ne it jële nga ci ndam ci eh, luy tegtale ne daraja ja eh, kawe na kon ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa mu def liggéey boobu fi misaani xasanaatika te jëriñ ci eh, mboole mu jullit ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def ko njëriñul kese loo xam ne da nga ko jëriñu fii ci adduna ak alaxira te lépp rek yàlla kese rek tax lépp jullit bu ko dégg it dana la ñaanal ndax euh, ñëpp yéene nañ la ko kon bis na ko tey docteur Abdoulaye Baba Dieng euh, ngay allah kon bismillah jazakumullah xayran cheikhana ci mm, ibbee boobu muqaddima boobu te ñu lay santit ci ñaan yi yal na yàlla nangu ñaani barkeel ko noonu nga ko waxee moom noonu la amee tey jii lan doon def soutenance suñu doctorat d'état yàlla def ci tawfiq wax dëgg yàlla ñu am ci excellence muy imtiyaaz ma darajat sharaful ula loolu lépp di tawfiqullah rek waaw euh, alhamdulillah ak tamit nag wax dëgg yàlla euh, gis ni li ngeen ñuy yare ak dina ko soññe saa su nekk mooy ñuy tënku ci xam-xam rawatina xam-xam bu dëppoo ak alxuraan ak sunna suñ kéemtalaay kàttan di ko gëstoog di ko jëfee kon uh, ci seeni tànk rek la ñu bëgg di jaar ñaan yàlla nag mu barkeel lépp barkeel xam-xam bi yàlla na yàlla nangu ñaani ñu koy bokk ak nag Sénégal gépp di ko bokk ak uh, bépp jullit rek boo xam ni uh, lii boo ko déggee dina la neex jazakumullah xayran cheikh bi laaj bi kii dafa wax ni politiciens yi yeesa bu ñu bëggee nga votel leen wala nga ñëw ci moom dañ lay joxaale xaalis bu ñëwee di campagne mu ni ndax jël xaalis yooyu dina dagan di sa jox la vingt mille wala vingt cinq mille ndax nangu ko dina dagan wala day dugg ci ger ndax dañ la koy jox yàlla taxul mais dañu bëgg nga voteel leen alhamdulilah ay politiciens yuy seddale alal ngir ñu woteel leen ok loolu day am fi yàgg na ci sunu réew mii nag te it euh, laaj bu mel nii jaaloon na fi ci waxtu élection yeneen bañ jotoon ca addu moo tax liñ ciy wax itam du soreeg rek lañ ca waxoon moo di démocratie bii nga xam ne moo jóge ci réewi sow yi ñëw ci sunu réew yi ñu di ko jéem a dund day li ci nekk ci ay lor moom bari na lool xaw ma nag nu jariñ la toll waaye lor ji moom bari na ndax yi ci juyoog diine ji bari na li ci juyoog ngor bari na li ci juyoog aada yu rafet yi ak cosaan yu rafet yi bari na lool waaye rek liñ ci mën a wax mooy ger ci biiri élection moom dafa yaatu lool xam nga ne ñu seddale aw nit ab xaalis ngir jënd seeni kàddu ñu wateel la loolu moom ger gu fés la waaye am na yeneen i ger yoo xam ne googu de leen a gën a fés waaye ñoom it ger lañu ndax dajale aw nit xeetu digg wu nekk nga dig leen ko ne leen danaa ko def te yow mi koy wax xam nga ne doo ko def waaye la nga ci jublu mooy nañ la jox seeni kàddu loolu xeetu ger la nekk ci mbir muy wàllu diine moo xam ab tariqa la moo xam leneen nga nekk ci ba ñépp xam la ca xam ni kii moom taalibeb tariqa sàngam la jekki ba élection ñëw nga jekki jékki ne sofeet génn ca tariqa ba nga nekkoon ñëw déclaré ni ci beneen laa bokk ndax jàpp ne bii nga ñëw seeni carte moo gën a bari loolu laa chaque ne xeetu ger la su ko defee la nga xam ne mooy la rek mooy ñi am fulla te am fayda te yor dara ci xam-xam ak ngor dañ dul am njëg ba kenn di leen jënd dañ du doon itam ñu kenn mën a nax boo dikkee yor sa xaalis di ko joxe te xaalis bi xam ne li wér mooy moomoo ko xaalisu réew mi moo xam lu ko tàbbal ci say loxo su leen neexee mën nañ koo jël ba noppi bu waxtu woote jotee ñu xool ka gën programme ñu woteel ko ndeke noonu ka soppi ko ca lam nekkoon ci diine ñëw ci leneen ñooñee mu fekk si suñu amee fulla dañu xam ne loola taxul woon réew mi jóg waaye li ko tax jóg ak li war ñuy watee ak di tànn nit moo di ñu xool ba xam kii luy programme suñ xoolee gis ne programme moo gën programme yi ñu ci def te am nañ yaakaar ci ni li mu leen di wax dëgg la su boobaa ñu sàllil ko seeni kàddu su leen wóoree ne am naxekat la itam nag donte fekk su ne leen ci seenu géew ñu ne ko fa kupp seet keneen koo xam ne programme moo ëpp solo moo tax daal li ëppoon solo ci ay élection mooy wax nit ñi sa programme yow mooy lan loo bëgg loo xam ne soo ca àggee suñ la joxee kàddu lii ngay def loolee moom mat a xam ah mu ngoog léegi nag euh, mbirum démocratie bi mu ngi noonu rek noonu la deme tàbbi na ci suñ kër yooyu la indaale bañ ko dalee dundee itam du tey kenn ku nekk xam na ne ca gannaaw li gannaaw am na ay nit ñoo xam ne kenn mos leen a xam ci diine sax faf waaye ñu jékki-jékki seen i ñuy calcul di xalaat ba mu yàgg rek ñu ne xaaral ma ñëw dem tàbbi kër diw su ma fa tàbbee danaa am fu ma teg samay tànk daa defay tàbbi ger leen nax leen euh, taxaw euh, fekk la ngay amal njëriñ ca réew ma la nga cay soppi du bari euh, noo ngi ñaan borom bi tabaraka wa daal mu gën a gindi xeet wi gën a gindi askan wi ba suñuy tànn ñu ànd ak seen xel ak seen xalaat ak seen bëgg seen réew bëgg seen diine bëgg seen aada bëgg seen cosaan yu rafet fekk loola rek moo leen tax di woote tudd leneen naam baarakallahu fiikum cheikhana cheikh bi kii nee na ñi ngi jëm ci ay élection dimanche le 31 juillet 2022 nee na yan euh, ndénkaane yan orientation yan digle ngay digal ñi nga xam ni ñoo war a dem euh, ca ensemble ba nekk fa ay député nee na yan ndénkaane nga leen di dénk alhamdulillah yan dénkaane lañu war a dénk député yi nga xam ne ñoo war a dem ca parlement ba muy assemblée nationale waaw xam naa day ñi nga xam ne ñoo seq géew politique bi day ci suñ jamono yi nu toll te toll ci ay campagne ñu ngi leen di déglu bu baax a baax a baax di déglu seeni programme donte nag waxtaan ci programme néew na ci lool ci campagne yi niñ koy déggee waaye nag ay yëf a ngi ci foset ñu di ko dégg yoo xam ne ñàkkul ne am na ñoo xam ne ñu ngi def ay déclaration di wax ne yéene nañ ne suñ àggee ci assemblée ba te ëpp fa doole danañ def nangam ak nangam ak nangam yooya doon ay yëf yoo xam ne noo ngi koy déglu mu doon ay dig waaye nag su fekkee am na leneen luñ cay dolli dañuy wax ne dig yooyee yu baax la waaye doyut nañ yóbbuloo yeneen i dig yoo xam ne bëgg nañ koo dégg bëgg nañ it bis buñ toogee projet yee ñuy joxe ñi boole ko ca yooyee bokk na ca diine yàlla ji lu koy ormaal jëmmi yàlla ja ak jëmmi alquranul karim ak jëmm yenentu yàlla ba ak mboolem yonentu yàlla ya ay kàddu yu tegginuwut bañ a jógati jëm ci ñoom képp ku yëkkati kàddu gu tegginuwut jëm ci yonent bi wala jëm ci yàlla ak alxuraanam ak i malaakaam di leen nuróoleeg leneen lu dul loola noo ngi séentu kon ca député yooyee ñu jéem a amal loi boo xam ne day criminaliser lool yi ndax loolu kat moo yées ak ngóor jigéen suufeel yàlla ak yonentam ak alxuraanam ak i malaakaam moo yées ak ngóor jigéen njaaloo yi nga xam ne dañ koo daganal jigéen sañ jël aw carte saa boo xamee ne soxla naa dem jaayi boppam muy jaay boppam suñ ko téyee mu ne damaa am carte ñu xool carte ba bàyyi ko mu dem loolu yi lu fi mat a jële la te député yooyu yi ñoom la ñuy séentu ne loi bu mel noonu ñoo ko fi war a jële dorog dëgg la teg nañ ay daan yu ci koo xam ne dafay jëfandikoo dorog nañ ci boole sàngara ndax yéesu ko lu bon la loo xam ne day yàqum xel te mboolem ngiri lislaam yi dañoo dëppoo ci araamal ko te nag fii nu nekk majorité bi ay jullit ñoo fi nekk yoo xam ne dañoo araamal sàngara ci ni ko seen boroomu araamale kon dañ xalaatu luwaa boo xam ne day araamal ku jaay sàngara ci réew mi bakkan yi ñuy tuur ci ak neen rek ku tuur bakkan tuur deret rey nit ñu jël xëj ay at wala ay weer daal di génn ne lañ koy tëj doy na génne mu dem wala waxtu jéggale jot sax ñu jéggal la nga génn di romb ña nga xam ne ñoom nga tuuroon deret ci seen mbokk ñu di la gis ngay dem ak dikk loolu yi daa war a dakk te assemblée boobu donc ma li ñuy séentu ne ñoom su fekkee ne li ñuy li leen tax a jóg ñu fay ëpp doole tey dañoo fas yéene laabal suñu réew mi ci lépp loo xam ne lu bon la loolee ñu ngi séntu ab loi boo xam ne day wax ne képp ku tuurati dara ci nit ci ak neen ci lu dul dara lay pay ga rek mooy ñu tuur sa deret loolu soo amee léegi mu daal di wàññi loolu lenn rek la ci yi nga xam ne ñu ngi koy séentu ci suñ député yooyu yi di am yaakaar ci ne danañu ko boole ci yi nga xam ne ñoom lañ fas yéene yóbbu ci assemblée ba su fekkee ne ñenn ci ñoom ëpp na ci doole moo xam wet gii la rek moo xam wet gële waaye ku fa dikkati daal di indi ay loi yoo xam ne yuy laabal réew mi la yu mel noonu yi noo ngi séentu nga boole ko ci ndax loolu ay yitte la yoo xam ne jullit yi ci seen jëmmi bopp wala ma ne sax sénégalais yi ci seen jëmmi bopp dañ koo aajowoo yàlla borom bi tabaraka wa taala def tawfiq te sàmm sunum réew def ci jàmm ñu àgg ci élection yi ak jàmm te def ko ak jàmm delluwaat ci kër ya ñuy gaañe gaañe parlement bi ñu gis beneen parlement boo xam ne dana wuute ak yi nga xam ne moom lan daan gis depuis ba ñu amee indépendance ba léegi wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi soxna si nee bi muy xam ni ëmb na day fekk na boroom këram faatu na ba mu def semaine wala ñaari semaine mu ni léegi daam ci lu muy jeexe beneen bi mooy bu nuy miiras ndax doom jooju nga xam ni moom moom la ëmb te boroom këram jur ko ndax dina bokk ci li ñuy miiras wala déet ndax ñu ngi waaj a miiras te moom amagul weer moom li ëmb amagul weer kon amagul bakkan waaye nag ëmb na alhamdulilah bu fekkee ne borom këram dafa génn àdduna ba am ñaari semaine wala ñett mu door a xam ne ëmb na ala kulli xaal moom wóor na ko ne eh, ëmb bi ci borom këram bi faatu ci moom la jóge su loolu xasee am nag kooka doomama ah. la ciy daal di tegu rek mooy iddaam balaa jeex maanaam te njigoogee mu nekk balaa jeex doom ju day juddu saa bu juddoo nag rek jeexal na ak tey jëm daal di jeex mu daal di doom jooju it doomi ko la suñuy miraas dañ ko ciy boole su fekkee xam nañ léegi góor la wala jigéen suñuy miraas dañ ko fay bàyyil cërub góor wala cërub jigéen su fekkee xamaguñ ko mën nañoo xaar tuuti ba mën koo xam ndax jumtuwaay yu xarale yi mën na ko teel wone lool bu fekkee mënuñoo xaar it te yàkkamti am na anam gu ñuy miraase ëpp ëmb buñ demee ci miraaskat ba bu leen di miraasal am na nattale yu muy def yoo xam ne su ko defee ba àggal daañu fa bàyyi som boo xam ne su juddoo du perte lu mën a doon rek danañ ko jox wàllam bu desee su ko defee ñu delloowaat ko ci ñuy doon waaye du manqué wallahu taala alam jazakumullahu xayra barakallahu fikum sheikh cheikh bi kii nee na dañ ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xabbatu sawda day faj lépp ba mu des dee mu ni te moom am na feebar bu ko sonal mi ngi naan xabbatu sawda boobu ba léegi ni ndax xabbatu sawda bii jaay ni vrai la wala déet alhamdulilah naam alxabatu sawda day day faj Euh, bépp feebar bu mu mën a doon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe kooku amut sikki sàkk moo xam nag yow ndax la ngay jëfandikoo moom la wala du moom waaye moom bi ala kulli xaal am na te ginnaaw yow yaa ngi fajulu yàgg di ko jëfandikoo te yaa ngi dund ba léegi bay wax ku la wax ne du xabatu sawda boobu yi ci kattanug sunu borom wa taala akub dogalam di moo la aar ba ngay dund ba léegi te feebar ba yóbbuwu la kon bul gaaw a wax ne mukk maa ngi koy jëfandikoo te gisuma njariñ amaana njariñam moo la fi bàyyi ba léegi ci dogalub sunu borom tabaraka wa kon kay yow bu fekkee li nga yor xabatu sawda la continuer rek bul yàkkamti borom bi tabaraka wa taala moo yor saafara yonent bi yàlla moom la yàlla di wax muy nettali ci moom la jëli ne ko xabatu sawda day faj bépp feebar ba mu des feebarub ndee kon yow jàppal ne su fekkee ne saw fan jeexul feebar bi nga yor boo di ko jëfandikoo bu yàggee mën na faa jóg wallahu taala alam macha allah jazakum allahu xayran jërëjëf bi kii nee na moom day xam nani ni lislaam àdduna ci or ak xaalis ndax yuñ ci war a takk yuñ ci war a jëfandikoo yuñ ci wurtu jëfandikoo ak uh, yu demee noonu mu ni ndax jamaa lislaam àdduna ci comme ni mu àddoo ci or ak xaalis wala déet. alhamdulilah loolu ñu wax jamaa muy almaas almaas moog zahab muy or ak fidda muy xaalis yooyu la ñu tuddee al axjaarul yooyu yëpp ñoo bokk ab atte ay mbell lañ yoo xam ne mbel yu gànjaru la lépp loo ne wax nañ ko ci or rek. soo bëgg nga wëlbati ko wax ko ci jamaa moo xam ca kum dagan la kum daganut bu fekkee lu ñuy takk la moo xam luñ cay génne ci asaka la ak kañ lañ ko ciy génne loolu lépp ay attale yoo xam ne ñoo ko bokk la wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi kii nee na moom daal li mu gis ci société bi da ko tiital nee na ba ci xale yu ndaw a ndaw yi yoo xam ne soo amagoon fukki at ci góor ak jigéen saa yi ñuy waxtaaneeg yi ñuy xool ak fi ñuy dem yi demee noonu yooyu yëpp daal euh, yu bon lay doon mu ni yan orientation la cheikhana docteur Mouhamed Ahmed Lo di joxe ci loolu alhamdulilah mbokk bi de yooyu mu gis ci xale yu ndaw yi muy a yàqu loola da koy xool ci société bi da nga ko gis la nag boo xam ne daanaka sooy boo gën a ñëpp ne ci seen wàllu jiitu mooy waajur yi ak nañ war a yare seeni doom ak nañ leen war a orienté ak nañ leen war a sàmme ak nañ leen war a taxawoo kon ñoom ñoo ci jiitu waaye jumtuwaay yu xarala yi ak média bi ñuy seetaan yooyu yëpp ay responsabilité la yoo xam ne ña ko yore am nañ responsabilité ci jubug ndaw ñi seen seenu dëng waaye ala kulli xaal ba léegi moom baax mën naa nekk ay daaraa ngi fi ak i bu yarukaay yoo xam ne yooyu yi muy wax ay gone nga ko yoo xam ne du ci ñëpp muccitit la ëpp si ñoom mucc nañ ca kon jullit bi li ko war rek mooy mu jéem a xool yoon wi muy sóob doomam jéem ko ci jaarale te jéem koo jege di ko xalaatal di ko orienté di ko jubbanti ba mu mën a xàmmee la baax ak lu bon ak di ko ñaanal nag lu am solo di ñaanal njaboot gi borom bi tabaraka wa taala teg leen ci siraatul mustaqim ndaxte lee euh, mbaax mën a bari mbon mën a néew ci société bi waaye toog di seetaan rek day lu neex waaye def euh, xale yi ñu tëggal leen ba naan ñoo yor seen bopp yor seen téléphone bopp fu nekk ñu fa dugg suñ bëggee génn génn suñ bëggee dugg dugg seen i waajur duñ xam kañ lañ fi jóge duñ xam anañu soxla léeg-léeg loolee day moom euh, xeetu bayliku la woo xam ne la muy jur ci société bi noonu yi ko kii laaj di waxee la muy jur doonut loo xam ne lu baax la yal na borom bi tabaraka wa taala jubal ndawi jullit ñi ñuy ay góor wala ñuy ay jigéen teg leen ci siraatul mustaqim ak seen i mag sax naam jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi kii mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daganale lekk meddi ci koo xam ne danga loru mu ni ndax medd yooyu meddu mbaam xoox da ci bokkaale wala déet wala meddu ñam yi nga xam ne ak bàyyi ma yi nga xam ne dafa dagan ñu lekk ko rek la alhamdulilah dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na medd waaye alquran alkarim waxi sunu borom tabaraka wa taala moo ko gën a moo ko jëkk daganal ci koo xam ne toll na foofee nga xam ne ci jot bakkanam ci la toll bu nit ki xasee toll ci jot bakkanam nag nga xam ne day lekk rek wala mu dee euh, su boobaa la mu mën a lekk rek lu jot te doon bu mënee sa lekk loola sharia may na ko mu lekk ca lu koy tee dee waxuñu mu continuer di lekk ba rek de waaye bu lekkee ba faatootut nag mu daal di yëkkati loxoom moo xam loolee muy lekk euh, meddum xar la wala meddum bëy wala nag wala meddum xaj wala meddum mbaam lu mu mën a doon daal loola ginnaaw lu koy tax a dund la may nañ ko mu lekk ko te dund balaa faatu ndax bakkanu doomu aadama aar ko moo gën a màgg yooyu yi bu ñuy wax medd nag mooy loo xam ne dafa dee te dee dee gu bees waaye kenn rendiwu ko waaye waxee su lu nekk ci njag ba ba nëb ba yàqu ba tan ya nekk ca lu mel noonu loolu moom kenn doof kenn mu lekk ko ndax loola mën naa tax mu daal di gën a gaaw faatu sax foofu wallahu taala alam waffaqakumul baari jërëjëf cheikhana cheikh bi kii de nee na moom jàng na yonent bi sallallahu alayhi di wax ni ngërëmal yàlla mi ngi ci ngërëmal waajur merum yàllaak tamit mi ngi ci merum waajur mu ni mais su fekkee ne waajur woo xam ne daf laa jur ci lu dul farata maanaam waajur woo xam ne dañ koo dañ ko wolof daal dañ koo tooñoon ba yow nga xam ni kat sa waajur wu jigéen bii bi mu lay jur sa baay takku ko woon mu ne ndax kooku am na am na ak ñuy euh, jéem a wut ngërëmam alhamdulilah xadis boobu yi mu junju muy ridallahi fi rida alwalidayni wa saxatullahi fi saxati alwalidayn euh, xadis bi anam gim dikke mooy ridallahi fi rida alwalid wa saxatullahi fi saxatil walid waaye anam googi ni ko waxee euh, dajewu maag moom ci téere xadiis yi donte nag siiw na lool ci làmmiñ yi doomu aadama yi ak ci sax téere yi ñuy jàngale ci école yi xadiis bi lu ñu wax mooy ngërëmul yàlla mi ngi ci ngërëmul waajur wu góor meram mu ngi ci merum waajur wu góor loolu nag boroom xam-xam yi dañoo wax ne bi mu ko waxee alwaalid jigéen ja it yaay ja da ciy duggaale euh, xadis boobu yi am na yeneen xadis yoo xam ne dañuy dëgëral loolu wane ne yaay ji ak baay bi ñoom ñëpp la bokk na ci di wax ne raxima anfu man adraka walidayhi aw ahaduhuma fa lam yudxilaahu aljanna toskari ñeel na ki nga xam ne dund naag ñaari waajuram wala kenn ci ñoom te tàbbaluñ ko àjjana euh, ak aaya yi ñëw ci alxuraan euh, bari lool wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu euh, nga xam ne dañuy dénkaani ñu rafetal jëme ci yaari waajur bari na lool ama lim laaj nag mu ne yaayam daf koo am te amewu ko ci yoon ndax dana tax mu rafetal jëme ci yaayam amu kay ndax moo ko jur yaay ji moom ala kulli xaal moom kenn laam laamewul ne moo ko jur na mu juddoo doonul aw yoon teewul moom moo ko jur loolu moo tax ñoom ñaar dañuy doonante bu doon ku góor ko moom duñ doonante waaye yaay ji ko jur moom dañuy doonante ala kulli xaal yaay ma lépp loo xam ne dañuy sant nit ki mu def ko ci ndeyam ci rafetal danañ ko sant mu def ko ci moom su ko defee it dana am tuyaaba naam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii nee na ñuy jaay bañu publicité waaye ñi nga xam ni maanaam opérateur yi nga xam ni ñooy jaay euh, ay crédit yu demee noonu yee saa dañuy def ay promotion yoo xam ni dangay jënd téeméer ñu tegal la ci ñaar fukk wala ñeen fukk wala yu demee noonu mu ni ndax loolu riba lay doon wala déet alhamdulilah ñuy jaay crédit di ci def ay promotion di yokk boo ma joxe nangam ma jox la lu ko loolu moom wàññi sam njaay la rek loolu bokkut ak riba maanaam nit ki bu ko neexoon mu yor suukaram di ko jaaye kilo téeméer ba mu yàgg mu ne bu dee bésub tey bii moom ku ñëw juróom fukk laa lay jaayee ngir marchandise am daal di jeex tàkk mu dem yoonam loola dara nekk ci bokkul ak riba wallahu taala alam jërëjëf jazakumullahu xayran cheikh bi kii nee na yenn teraanga ak xéewal la yàlla jegleel jaamam yi nga xam ni ñooy dugg ajjana ndax mu gën a mën a góorgóorlu ci jaamu yàlla alhamdulilah teraanga yi nga xam ne moom la sunu borom tabaraka wa taala digg waa ajjana day tuuti nan lool ci nag mën koo tontu borom bi tabaraka wa taala nee na fala taalamu nafsum ma uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kaanu yaamaluun nee na kenn mënta xam li leen borom bi tabaraka wa taala defal ci ay xéewal foofee ci àjjana yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi melalee xéewale àjjana def ne maa laa aynun ra'at wala udunun samiat wala xatara ala qalbi bashar loo xam ne bët mosu koo gis nopp mosu koo dégg am xel mosu koo xalaat loola mooy àjjana kon nag euh, melal ko moom fii ci àdduna ku koy jéem da ngay jéem rek la ko gàttal daal mooy la borom bi tabaraka wa taala wax ne wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma taddaun lépp lu ngeen bëgg ma nga fa lépp lu ngeen laaj ñu jox leen ko jeex na yàlla nu borom bi tabaraka wa taala teg ci yoon nga jëm ajjana te tàbbal nu fa loolu moo ëpp solo li ma a gëstu la fa nekk ndax la fa nekk mu ne su koo xam waaye daal nu ñuy def ba dem fa loolu mooy ngir tey mbir yàlla na ko yàlla yombal naam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na sàcc boo xam ne dañ koo jàpp dóor ko ba mu dee lan mooy mujjante la moom sàcc boobu ñu ko jàpp encore door ko ba mu dee ndax dañ ci am bàkkaar wala li ñu def baax na alhamdulilah mbok mi nim laaja laaj bi sax te wax ne ndax sàcc boobu ñu door ba mu dee ndax dana texe ala kulli xaal xam naa texe dina fii ci àdduna moom ndax jumtam di fabi alali jàmbur ba faatu fekk la ca moom loolu ak texe di fii ci àdduna fële ci ëllëg nag borom bi tabaraka wa moo xam waaye ala kulli xaal charia al islamiya moom lam tër cib sàcc xam nañ ko mooy ko sàcc loo xam ne lu ñu war a daggee sa loxo la te charte ya daje ca dañuy dagg loxo ba loolu la santaane waaye ginnaaw nit ña nag atte woowuñ charia moom dañuy fétal di dem rek kooku moom charia euh, day toog di leen seetaan rek suñ dee rayante suñ dee bàyyi mu dem ak yooyu yëpp ñoo ko defal seen bopp waaye charia moom lam santaane bokkut ak loola wallahu taala alam baraka allahu fiikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum allahu lima fihi alxayr wassalah ci toon ci leeri cheikhana yàlla na la yàlla sàmmal yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission alfatawa ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu a'uudu billahi mina shaytaani rajiim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 نحن رووا فيني أبتي جم نانو جنبي نانو جنبي نانو جنبي سونو دين نحن رووا فيني أبتي جم دولو جنبي في جي ndaw lu jàngul doo fi àtte tanggul jàngi yoonen te dali ko ni xam-xam leer la naa ci xuus kon du sama yawmal qiyaam dinañ la laaj jooy Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 cinq suñuy partenaire ñu nga ci Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot une heures jàpp 22 heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga ko bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليمي